lii la di leen li gën a fas ci xibaaru làmb noonu laay def dama jël nuyoo bi gisal ci borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko nuyu di ko ñaanal jàmm ju bare bare Assane Waalo sama faye ñëw jukkil leen li gën a fas Assane maa ngi ne baaxee fay naa internet Leewtoo TV amaan bi fi jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fas ci yéen kaay yi di leen fàtte revue bi Ibrahima Jador moo koy may ak gamb complet boobu mu àndala ah. doomu réew mi ñoo ko fi def consommé local la ah. nañ ci au Kayar nag ndox bi ñuy aar ndox bu set sell jaar ci jumtukaay yu mucc ayba baax ci xale baax ci mag léger bu seddee neex bu tàngee neex au daal Assane mooy ndox bi ñuy aara ah. tey ji lundi 21 juin 2021 bis bi ala dame waaye Assane hmm. yaa ngi déglu woy bi xale daan woy stade samedi hmm. yaayam njaago baayam njaago ay njaago lañ ba tax na journal suñu la moom xëyee ci xëtam mu njëkk nag moom la xëyee di franc njaago or ba ca parcelle daa def ki nga xamante ne nii mooy Tyson numéro 2 kaaw ko 32 secondes vite fait bien fait Assane Wala. dëgg la Ndeye Mbacke noonu la ko journal suñu làmb titré nee na Franc démoli Tyson 2 en trent deux secondes. ginnaaw bi mu waxee loolu nag jox na ci kàddu ay eh, coach mel ni ci ku ci mel ni coach Lato mi nga xam ne nii moom mooy ne waa jàmbaar wrestling eh, academy moom li mu wax nee na travail dañoo ñoom dañoo travail box ndax dañu jëlee benn coach coach japon la tudd. jëlee ko depuis France indi ko parcelle euh, pour que muy entraîner Franc looloo tax jour ji Franc wane xeex bi mu wane foofu ci stade bi. jox nañ ci également kàddu kii di Ibrahima Mbaye nekkoon coach su Fass Ibrahima Mbaye li mu wax moom nee na Tyson 2 dafa xeeb euh, Franc looloo tax nee na moom respecté wu ko looloo tax euh, li mu fa jëlee samedi mu dimanche wala samedi mu jëlee ko fa. jox nañ également kàddu Franc mi nga xam ne ni moom moo waral bés bi ginnaaw bi mu daanee nag. que Franc fi mu teg bëtam nee na moom entre Eumeu Sène ak Lac 2 daal la soxla ku ci ñëw baax na nee na euh, Eumeu moom moo indi Tyson 2 mu daane ko donc jot na ñoom ñaar bëre. bu ko neexee de ku kër laaj borom kër ga ca doonu nag ginnaaw ku def lu rëy olof Ndiaye ne am lu rëy ba tax na. journal Les Arènes moom tam moom xëyee ci xëddam bu njëkk nag victoire ba Franc am moom lay xëyee waaye Balla Diouf mii nga xam mooy coach jàmbaar Ouest di académique ba mu xëyee moom la muy wax mooy kii di Franc euh, kii di Tyson 2 lam def bépp leen ndax ñoom xamoon nañ ne Tyson 2 loolu lay indi jour boobu noonu dëgg la Ndeye Mbacke les arènes moom li mu titré mooy et de 10 pour Franc nee na Franc am na dixième combat ci dix victoire maanaam victoire combat yi mu am yépp daf ko daane moom it également jox na ci kàddu Balla Diouf mi nga xam ne ni coach su Franc la moom nee na comme ni nga ko waxee moom Tyson 2 li mu indi bettu leen ndax durant euh, préparation yi ñoom amoon nan ay information que ne Tyson 2 xeex lay euh, lay lay lay préparé ak euh, musculation looloo tax ñoom le jour bi dañoo ñëw rek contrer ko moo tax Franc daane ko très facilement jox nañ ci également kàddu kii de coach su Djigo coach su Djigo moom mooy coach su Tay Shinga moom moo indi Tyson 2 moom mu wax nee na Tyson 2 dafa respecté wul consignes yi nee na nit doom sa doom sax boo koy dóor war nga jël sa temps war nga tey pour nga mën a atteindre sa objectif nee daal le jour ji Tyson 2 respecté wul franc te euh, loolu boppam rek la ko war a euh, yedd ba moo war a yedd boppam ndax lim euh, plan yi mu tegoon respecté wu maanaam bu mere kenn na mere boppam. exactement. ca doon nag record yi xëyee moom tamit ci xëtam mu njëkk Eumeu Sène à côté de Tyson 2 100 pour ba tax na la record tam la mu gisaat mooy Kid Tyson 2 kenn xàmmeetu ko la mu indi jour boobu du bëri dëgg la même titre la pratiquement journaux yëpp euh, record tamit li mu wax nee na 10 victoires en 10 combats franc def euh, le plein la def quoi ci 10 combats yooyu yëpp daf ko daane jox na ci nee également. Tyson 2 le jour yi il était méconnaissable ndax kenn xàmmeewul woon euh, Tyson 2 ko xamee woon benn xeex boo xam ne ne xeex bu rangé lay nekk xeex bu tegu ci yoon mais le jour yi samedi passé li mën di xeex boobu tegul ci yoon euh, wax na également que waa 100 pour cent parcelle ñu ngi woon ci ginnaaw franc ndax gis nañ fa Papa Sow Garga 2 Dame Seet ñoo ñëpp ñëw doon dooleel franc ba yàlla may ko ndam ci combat boobu waaye Assane nag jour ba ngay daanu jour ba kii di Franc ba mu daanee Tyson numéro 2 nag bëgg-bëgg mooy jógee féeri parcelle mbooloo dem académique bu Papa Sow waaye nag lañ ko tegal dafa diis lool. dëgg la euh, Ndeye Mbacke 2 millions la waa parcelle mbooloo wax balaa Franc jógee foofu ci parcelle mbooloo di jëm ci jàmbaar wala seen académie dana leen jox 2 millions wax jooju nag bala Diouf moom moo ko révélé ci record. nee na instant yi daal franc bëggatul dara parcelle mbooloo euh, dem jàmbaar académie rek la bëgg waaye waa jàmbaar académie dañ ne ko waa waa parcel mbooloo plutôt dañ ne ko bala ngaa dem xaw nga jox ñu 2 millions loolu nag euh, diis na trop nay bàkk ñaare am day bëgg dem wala mbaay ma xaalis bi ñaare am <laughs> wasan rek mbaa dem dool mais mën nañ ko waxtaanee quand deux 2 millions xaw na sori mm. peut être am na benn euh, somme boo war a joxe mais warul mën a àgg 2 millions quand même li ci kanam du rawi de temps dina dem wala du dem nit bu ci am dañ ko tegal ci ci Leewtoo TV Eumeu Sène prochain combat am contre Balla Gaye numéro 2 lam cee xam le nee na mu ngi liggéey lu méttee métti ngir waaj ginnaaw bi mu ñaari yoon Balla Gaye jëlaat avance bi pour ñu war a daje euh, troisième fois samedi passé bi mu demee arène nationale jàkkaarloo na fa ak presse bi li mu fa wax nee ne mi ngi préparé combat bi bu baax a baax a baax ñëwaat na également ci li tax mu jël kombaa bi comme ni nga ko doon waxee rek nee ne euh, décision familiale la mënu ko woon bañ léegi daal li ci des mooy que ñu jëflanteeg Balla Gaye nee na choc bu baax la choc bu rëy la te le jour yi dina wane ne Eumeu Sène euh, mbër mu mag la te mbër moo xam ne nii fi mu daan jaar ak Balla Gaye rek lay jaar. <laughs> double XL di am le 4 juillet bañ jëm Mame Balla ak Mbaye Guèye Mbaye ba Assane Wala ku ci nekk xas-xas moom sa morom. dëgg la ñoom ñaar doon nañ benn face à euh, biig ci guddi ñoom ñaar ku nekk xas-xas loo nan wax na li ñu war a jëf le jour ji combat boobu nag Assane Ndiaye mu ngi ko tëgg mi ngi ko prévoir le 4 euh, juillet ci stade Iba Mar Diop ñu fàttali ne palmarèsu Mame Balla ak Baye euh, Mbaye Guèye gi Mame Balla jot na def 21 combats am na 12 victoires 8 benn match guy gi moom am na huit combats euh, sept victoires une défaite Laye Gothé rek moom moo ko daanu ci carrière am la le moment. mooy noonu nag bébé bébé poids lourd combat ba mhm. nag moo moo kii moom arène nationale bi kaw yi tàng la kaw yi tàng na lii démb fàllu Ndiaye moo ko tegoon ci arène nationale démb ci dimanche bi bébé Birahim war fa doon fa jàkkaarloo ak euh, Blindé. Blindé moo ko fa dóor daan ko looloo tax journal suñu la mu ne bébé Blindé mais kaw bébé Birahim les arènes bind na ci moom nee ne bébé Birahim bébé Blindé vainqueur dans la violence ndax dafa daa dafa dóor dóor yu métti avant mu koy daane. mu ngi noonu nag waaye beneen violence ba ñu ràññee te ñu te ñu regretté woon ba waxaat ci ne woon dootuñu waxaat. amaat na nag ginnaaw supporter yàq stade ba kii di Pape Abdou Fall di promoteur nag comme du baaraam du kenn ko dul CNG ba. dégg la démb ci combat blindé bi ak bébé Birahim dañ fa gis ay supporters ñuy yàqaat saisi euh, yi waaye gendarme yi ñëw nan euh, aaye leen am na ñu sax euh, jàpp waaye Pape du Fall àdduna ci li wax nee ne moom CNG bi moo deful liggéeyam ndax dafa war a recruter ay stagiaires ñoo xam ne nii dañuy taxaw ci stade bi di euh, saytu kaaraange supporters yi ba pare di euh, fexe ba duñ yàq euh, seen yi fa nekk waaye bi mu paree xaay gee ko tontu ne ko lii du problème mu stagiaire waa CNG ñu yàq mënul leen a tere quoi. nee na ñoom supporters yi nga xam ne nii ñoom ñoo fa ñëw di yàq dañu war a identifier seen lutteur bañ leen a wutal combat nee na loolu daal bu mu ko defee peut-être. Euh, lii li ni mel euh, dina jóg ci arène bi. jóg ci arène bi loolu lañ bëgg ah sa làmb ci soxla ci violence jàmm la paix fair play 100 pour cent loolu lañ ci bëgg ba tax na Jackson nag galaa bu mu doon amal Iba Mar Diouf Assane Waalo. Mhm. Buur Sine Boy Sine sax laa moo daan Baba Mar pare relancé wu daal di delluwaat fa ne woon. dëgg la dafa jóge woon ci défaite war a dajeek Baba Mar donc bu daane woon day métti ci moom loolu tax. Bour Sine ci samedi bi stade Iba Mar Diop Jax tëggoon combat boobu Bour Sine moom moo fa daane Baaba Maal boobu nag dafa relancer carrière dina ko permettre mu revenir amaat euh, beneen euh, jéego boo xam ne dina ko jox dox ci làmb les arènes également euh, bind na ko nee booy Boy Sine sans pour Baaba Maal nee na daal amul woon benn yërmande ci Baaba Maal samedi ci Iba Mar Diop. amul yërmande ci moom nag mooy Siré Dia. Assane Wall man man damaa xamul kaaw yi lan la kaaw Dakar <laughs> kaaw Iba Mar kaaw Thiès tamit caabri Samba jaw moo kaaw si rajo numéro 2 ay man lii fi ma koy waxee nii. dëgg la Ndeye Mbacke kaaw yi dañu tàkkaar naa si ginnaaw bi bu leen de kaaw bébé Birahim Thiès également gis nañ fa benn kaawo loolu samli la xewe woon euh, kii di bàyyi Samba Gaye moom moo tëggoon mbaa boobu war a dox ci diggante Caatu Samba Diaw ak euh, euh, Siré Dia Caatu Samba Diaw nag moom moo fa dóor dóor bu métti ba kaawo kii di Siré Dia Ndeye Mbacke. lutte simple lañ jëm nag ginnaaw ba ngañ seen teg tànkam fan yii yëpp ci lutte simple bi Toubacouta nag moo ko daal di freiné Assane Waalo. la dëgg la loolu ci ñaaning la woon samedi la woon plutôt. samedi gala boobu kii di PC production bu moo fa moom moo ko tegoon tegoon fa 1 million cent euh, combat bi nag ni mu fa demee mooy Toubacouta moom moo fa daane Nganseen Nganseen ñu xam ko temps yëpp mu nekk ci galaaya di daane euh, samedi nag Toubacouta bi nga xam ne nii rek la ci sele selemele moom moo ko freiné Toubacouta gannaaw bi mu daanee Nganseen am na 500000 kii di Nganseen am na 300000 poids léger yi Mamadou Moustapha euh, Sagne moom moo daane Ngañ Fay Mamadou Moustapha Sagne am na 250000 kii di Ngañ Fay am na 150000. suñu jógee ñaari dañuy daal di ñëw ba terrain gaal gi Manga 2 moo ko woote wala dafay teg mise u 2 millions 500 këjë raw gaal ko rek mooy Ablaye Senghor Assane Waalo dëgg la loolu démb la amoon ci terrain gaal gi mu nekkoon gala bu riche euh, Leewtoo point net nekkoon fa foofu nag Ablaye Senghor moom moo fa daane Gaskel Diamé final euh, Ablaye Senghor ginaaw bi mu daane am na 1 million kii di Gaskel Diamé am na 700 000 lii nag euh, léger yi Eh, mbay jóob moom moo fa daane Bas Ndong final eh, ginnaaw ba Mbaye Diop daane Mbaye Diop am na 250 000 kii di eh, Bas Ndong am na fa 150 000 Bas Ndong nag moom moo daane final sama mbër mi di Mbaye Tine 2 moo ko daane demi final. <laughs> man wax woo wér Assane man ngay jàpp kaay ci Mbaye Tine loolu waroo ma koo ba Assane di ma jàpp kaay nii noonu laay def ah kontaanee ko bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb looy tàggatoo Assane. di leen jaajëfal di leen remercier di remercier équipe bu Leewtoo TV yëpp di ci boole mën Yacine Fall di leen remercier di leen jox di dajal beneen yoon incha allah. baax yéen ñuy topp ci Leewtoo TV ku ci nekk ah dama koy fekk fam sama loxo nuyu ko turam ak santama ah, sama équipe technique bi. Fama bi Yacine Fall bég ci yow Bilal mention spéciale damay kontaan ci yéen bu baax a baax noonu leen dig daje allah ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm te di ko sakku ci yéen.